www.sangatv.com. dañuy recevoir Pama. Pama euh, un très grand artiste. Mm-hmm. euh, c'est vrai que xale la mais xale bu teel a xam bés. bésel wala xamoo woy boobu. càkkati càkkati nañu. boo demee xamu ko de. juste extrait duma daal war a topp say jàpp bu la neexee nga bës nag yaa xam looy bës. non mais eh neex bu mu tuddee bësal je te jure. nu ñuy bës woy ni ni ni ni lu ñuy bës. moo koy bësal. c'est une belle chanson d'amour je mets ça souvent à la radio. billahi wallahi. billahi pri. Ah. Euh, ah. <laughs> non mais justement nag ci loolu laa rebondir parce que euh, am na loo xamante ne mi ngi koy entamé. Euh, incha allah je pense que challenge la en tant que jeune artiste boo xamante ne yàlla may na ko ah aussi moom prédisposition yi ci war yëpp. parce que comme je dis carrière moom dañ koy préparé. Mm-hmm. et puis am vision et je vois que vraiment loolu mi ngi ci mais. Euh, bu ñuy xoolaat tamit Pama donc moom la dalal tey euh, doon xale boo xamante ne aussi il est très patient mais dafa am benn projet boo xamante ne da ko sumb muy projet boo xam ne nii euh, ça intéresse tout le monde parce que dafa am benn benn mën na ñox benn série boo xam ne dafa koy bëgg a def. Eh, attends way baa ngi nii. voilà. déedéet. bësal ko voilà merci. merci. bësal ko tiiñal naa man weddiwuma man man weddiwuma no weddi wuñu parce que parce que li ngay wax nii dana dana ci dana ci ñëw voilà donc euh, incha allah donc euh, Pama ñu dalal ko nag sinon voilà pour euh, gagner du temps sénégalais belle voix talentueux vraiment ñu wax ne daal ah, macha allah quoi waaw man ni may nuyu da ngeen may teel temps kii aywa aywa Pape du doo ko ko sant wurul ay ni mooy ci gën ju taari bokk na ci misaal mi ami bët ju taaru ak fii yaay ay ni sa xol day xolli day raxas tiigi bépp gàkk gàkki borom su lee ci lay plongé seetu xaalis la. waaw waaw. salaamaaleykum. Amar nga taxaw noonu comme ça ñu waxtaan donc Exxadé ci que dafa am projet bu mag boo xamante ni. exactement euh, li xale yëpp ci la nekk. et c'est très important je pense que ne Sénégal war nañ ko bàyyi xel euh, parce que projet boo xamante ni moom ci boppam dañ ko bàyyi man bu ma deewee tey rek bu leen autopsie. Euh, ginaar verre bi ma teg léegi <laughs> ginaar bu ñu saaf juste demal maa ngi. météo bi la trompé. 200 degrés demal demal demal demal. alors dafa nekk di préparé bu leen autopsie de. non da ngaa nit ki demal ba pare nag tey tànk yi nag. xaw ma ñàgg la. <laughs> Eh, la jëral lii vas-y vas-y météo bee ko trompé. Euh, c'est vrai ñu lay nuyu déjà di la dalal mais ñu gis ne euh, da nga ñëw at benn projet yoo xam te ne Sénégal yi yëpp dañu ko fas yéene euh, saluer. voilà gis nga kii benn kii dafa mënut a dem congé. te dañ ko may congé. ñu yàqal quoi léegi. voilà donc ñaar lu bees jàpp Mado Mado. ñaar bi man bàyyi naa yëg ci bopp <laughs> waaw d'accord alors euh, Pama ñu waxtaanee euh, benn projet bi nga xamante ne moom nga am euh, muy projet boo xamante ne chaque semaine da nga bëgg génne benn single donc def ko presque voilà <laughs> bëgg ko def toute l'année et tout ça ma bëggoon déjà nga waxtaan ci at Sénégalais at pourquoi projet bi oui déjà Euh, damay nuyu àdduna yëpp am naan salaamaaleykum di nuyu Sénégal di nuyu àdduna ah, di nuyu sama tonton Bouba Ndour ah di leen nuyu yéen ñëpp uh-huh. di nuyu tonton Ndiaga euh, sama mag Birane di nuyu sama papa Youssou Ndour waaw mm. may def dara damay nuyu ñooñu ba pare mm. ah mm. projet bi nag mm-hmm. bon déjà comme ni ma koy waxee chaque jour mm-hmm. Pama woykat bu bees la mm-hmm. xale la day doog a dugg ci ci ci day doog feeñ ci musique donc dafa ñëw indi lu bees ah mm-hmm. comme société bu ubbi mm-hmm. wala entreprise bu ubbi di jaay dara dafay ñëw indi lu bees et bu ñëwee dafay indi quantité ak qualité day fekk lu nit ñi di jaayee cinq mille ah mu def lu mel noonu ci qualité ba pare jaayee ko de waaw loolu sax mais <laughs> mais mais projet bi lan la exactement. 56 54 54 la. ah 52 52 morceaux 52 52 c'est 52 morceaux. de kii ko euh, xam nga morceau normalement. bu ñu c'était ça le souci de Exidex la dernière fois. jooy ko fecc ko miinante ak morceau bi avant ñuy jàll ci beneen mais bu dee chaque semaine nga lancé benn est-ce que nit yi dinañ am temps wu. Euh, enjoy ko comme il se doit. waaw bien sûr. dañ koy enjoy ci année ci ci semaine boobu rek. Ah. beneen ñëwee ñu enjoyaat ko. ba année bi jeex bu paree nag commencé na. commencé na doo jàllagum na. waaw gis nañ ko bés. Euh, avant la woon donc 52 euh, PC PC bi morceau bi koy annoncé ñëw na. ak urul ay nii bi ma doon acapella. waaw boobu ah. donc suba aussi chaque mardi la suba beneen mi ngi ñëwaat. Ah. Ah. bu génnee ñu ak 12 clip la ak 12 52 morceaux chaque mois un clip. chaque mois un clip. très bien macha allah. challenge mooy liggéeyam. ah mais fu mu ne nelaw amul. déedéet amatul de. boo demee woy na ko ba pare denc dafa rënk. Ah, dafa rënk loolu loolu. loolu la def loolu la def. 52 52 ñu ngi ci di liggéey ñu ngi ñu ngi tànn ci biir morceaux yi di génne di teg. loolu mooy loolu mooy yëf yi pare na junj junj moom doy na borom xel c'est-à-dire que ne euh, xam naa euh, dafa def morceau yu bëri mais bu ñu xool euh, tey série bi nga xam te ne commencé nga ko def déjà def naa ñaar génn gum na chaque mardi ngay génne benn single alors est-ce que mbalax rek la ñuy am wala style yëpp ngay la ñuy la ñuy la ñuy am waaw world music la ñu wax ak real music mm. dina mbalax mbalax bu saf-saf mm-hmm. comme ni ko Baye Cheikh ti di kii dina am traditionnel mhm. tradi moderne mhm. ah dinay ñëw dugg ci ci ci culture sénégalaise yi ñu am ci ci fii ni mhm. hmm, dina am wolof bi ah, fro bi xam nga dina am funk dina dina am acoustique arène bi dina am lépp. parce que tam ci nit ñi xaar lépp univers bu ñu la dugal da nga fay mën a dugg. Euh, moom boo ko fekkee fu muy woyee wala foo ko fekkee fu muy defee ay euh, soirée et tout da ngay am fierté. ci talent bi nga xamante ni moo nekk ci moo nekk ci moom moo tax bon ñii ne nañu projet bi dina antu ñii ne du antu l' essentiel mooy nañu ko bàyyi mu dem après on verra parce que moom doomu sénégalais yëpp la. waaw et puis challenge la challenge la en fait. bien sûr santeer naa ko ci trop te dinañ ko def. incha dinaa def moom dinaa def ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci musique sénégalaise. ma sentir li ñuy def trop dinaa leen ci invité ñu def ay futur. Euh, donc mën nañu wax daal projet bi 2018 bi yëpp la. 2018 ba début 2019 incha allah incha allah incha allah mais yi ngay génnee nii est-ce que dafa nar a bokk ci album wala yooyu tegee la boor après am album à part. non bu paree dama lay lancer défi yow. ñu toog fii ak Sénégalais yëpp. suñu paree. 52 PC. Mhm. na nit ñi tànn. Mhm. ne ma ma jox benn nombre. ne ma tant de morceaux laa bëgg. ma defal leen ko album. ñu wax ma weer bu leen neex. yu bokkul ak cinquante ci bopp waaye depuis kañ nga commencé mooy affaire yi di denc ah xam parce que tu es lu fi lu fi amul def ko depuis kañ nga commencé di woy di teg mardi dafa am fit oui mais xam nga musique moom déjà ci laa judd ci nga kay ah ci lañ la ngénte yaru ci màgg ci waaw ñu ngéntee ma ko su may jàng école xaalis bi ñu may jox may def sama poche ah, yëpp ci xaalisu musique la xam nga <laughs> donc euh, ma yàgg ko bëgg mais ah, euh, jàng bi laa gënoon jiital moom la sama papa gënoon bëgg mais terewul aussi mu permettre woon ma may jàngi musique xam nga di ci gëstu mm. di ci sopp aussi mu ma ci encouragé ne ma mën naa ci def dara mhm. à condition que ma def sama bac ba pare mhm. donc bi ma pare mu ne ma wala mu ngi noonu gëm naa la et moom moo doon wax tout le temps ne mosuma yéemu ci musique mais Pape Malick moo ma yéemu ci musique loolu la doon wax et que euh, ñaanal na ma mhm. peut-être que li may def ne aussi ci moom laa ko jële chaque jour nag damay sama secret du dara lu dul chaque jour damay composé ay morceaux damay tëdd na chaque jour dama teg benn planning boo xam ne naan tas de morceaux laay def les jours donc moom moo ma permettre mën a def loolu. mais style bi tam bëggoon naa ñu ñëw ci parce que il par rapport à wax ci wax. son habillement ku sa style ku lay habillé. waaw style bi maa ngi ci remercier kaase Boti ah bu baax. mu nekk moo mi nekk euh, Ngor Almati. Mhm. maa ngi koy remercier bu baax euh, pa papi Pama fashion style aussi. sa marque la. Mhm. fashion style. maa ngi leen remercier équipe bi yëpp papi fashion. Mhm. donc style bi moom xam nga style moom dañ naan mode mën na changer mais style tout le temps amul frontière comme ni musique amulee frontière donc ni ñuy ni ñu ni ñuy ni ñuy ni ñuy composer ni ñu bëggee tout le temps noonu la ñuy defaree sunu image. Mhm. moo tax saa ñu gisee ñuy gën a Ah ben c'est super raf bopp bi doxuloo lépp yooyu toolu salade. déedéet boppam dafa rafet. toolu salade non déedéet toolu salade. déedéet ah mais il faut il faut ñu def ko il faut ñu lakkal ko suñu rakk ah. la. Mhm. Ah, toolu ah, salade mu ne la rase yi comme toolu salade. dafa dafa coppe. Hmm? waaw ay coppati yooyu waaw coppati dafa coppati laxas yooyu ngeen doon def. mooy coppati dafa jodde wala da ngeen koy mais ay rase <laughs> yu ndaw la bi coppati la. yu du jodd. ay rase yu ndaw la. rase yu baax la avec nous <laughs> euh, ex balaa ñuy continuer 11h nag malheureusement dafa jot. Euh, euh, pour ñu bàyyi antenne bi ak Eva Tra mais mënuñu dem sans souhaiter joyeux anniversaire Kumba Gawlo. waaw on a des surprises pour elle. n'est-ce pas Kumba Gawlo mu ngi juddu comme tey un 29. janvier janvier moins 5 mu nekk bébé de l'année. bu ñëwoon <laughs> Eh, yow sori na de. bu ñëwoon juste juste juste juste juste dina nekk bébé de l'année mais quand même voilà elle doit avoir combien ci at actuellement tu sais pas. Euh? on ne demande pas l'âge à une femme. Mm. mais ku ma nekkul ngeen teg ko fan ci ngeen baal ma. mais ku ma nekkul fi eh waaw yow bàyyi leen ma waay yi sa waay mais y a aucun miracle dedans y a aucun miracle ku ma nekkul fi. miracle man daal seen nit boobu daal dama gëm. elle a 30 ans. une femme, elle a un âge. On le dit, mais on n'a pas envie de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais donc ne nous demandez pas notre âge aussi. On vous demande pas ça. Ah, looy def ak sama waa ji dara ump ko moom gàtt sama waa ji dara ump ko. non man lay wax rek Sénégal bu ko benn nit quoi waaye non parce que tubaab bi nee na. c'est dans le monde si waaw mais tubaab yi nañ koy posé te ba tubaab yi nañ koy posé. ñoo la ko imposé may ñu. mais la ñu waay yéen dem ngeen màggetu dem ba yi ngeen bëgg naan dool kenn. ma fi kenn. je ne suis pas d'accord. non je ne suis pas d'accord. alors bon en attendant ngeen di régler seen problème on va on va on